waaw di kontaan bu baax a baax nag ci ci ci journée bi tey comme ni ñu ko waxee woon rek euh, lii ba ñu ko tàmbalee war na mat macha allah fukki at dix ans ñoo ngi mot na fukki at ñoo ngi def social di jàppale jaamu yàlla yi ci weeru koor gi même avant weeru koor sax dañu koy def macha allah rawatina nag euh, ren ñu daal di koy gën a yaatal ma génnee première vingt millions d'abord ma yokkaat dix million muy trente million nga xamante ne jënd nañ ci dund ceeb jënd nañ ci diwliñ jënd nañ ci ay meew ak ay tàndarma macha allah euh, pour jébbal ko jaamu yàlla yi ba pare aussi ma génnee xaalis somme de deux millions ma wecci ko ay cinq mille pour ñu jox jaamu yàlla yi parce que ba ñu tàmbalee mbooloo mi ñëw nañ après ñu daal di baare ndeysaan ma gis mbooloo mi di bari ma ne pourquoi pa ma yokkaat ci laa daal di yokkaat vraiment def ay cinq mille cinq mille muy 2 millions macha allah pour ñu jox ko jaamu yàlla yi lépp nag dañu ko def ngir jaamu yàlla rek defuñu ko ngir ngistal ngir dara soxlawu ma ci merci soxlawu ma ci dara dama koy def suñu borom ndax lépp lu ma am suñu borom moo ko moo ma jox. rawatina liggéey bi may def mooy wàllu faj ak wàllu ñaan ma ciy jimbali askan bi nit di ci gis seen bopp kon nag damay jël dellowaat ko suñu borom maanaam damay delloo suñu borom njukkal moo waral ma def lii. defuma ko ngir dara dama koy def ngir jihaat nafsi maanaam liggéeyal suñu borom loolu moo tax ma def lii ngir liggéeyal Seydina Muhammad salaahu salaam moo tax ma def lii Moustapha. alors sëriñ bi gis nañ ni génne nga lu mot 30 millions euh, kenn jàppale wu ci lépp ci sa poche la génne ñu bëggoon xam rek euh, loolu nan nga koy gérer parce que jamono ju métti ji nga mën a génne 30 millions te kenn jàppale wu ci euh, loolu nan nga ko mën a gérer. waaw Moustapha c'est pas la première fois may def lii depuis 2010 ba tey maa koy def di joxe ay ndogu di joxe ay suukaru koor di def ay social. macha allah min nañ ko def moo tax du nekk problème kenn nekkul suñu ginnaaw yàlla ak yónente bi moo nekk sama ginaaw yàlla moo may teral li mu may teral dama ko war a bokk ak jaamu yàlla yi loolu moo waral ma def lii du ngistal du dara ndax yàgg nañ di def teraanga loolu moo waral ñu wax nit ñi nañu ñëw ñu jël si seen wàll ci man ndax li may joxe gënuma nit ñi maanaam li may joxe lii nekkul dama gën nit ñi yàlla dafa jàllale wërsëgu nit ñi sama loxo moo tax may partagé waaw loolu kese moo waral ñuy def suukaru koor xam ngeen ne chaque weer weeru koor dañuy joxe ay ndogu macha allah gis ngeen fan yëpp ñoo ngi joxe ay ndogu noonu lañ koy jàppee ba weeru koor gi jeex lépp liggéeyal yàlla rek ndax suñu borom li ma defal dafa rëy mënu ko fay foog ma jaayante ak moom ci jaamu yàlla yi lépp lu ma am bokk ak jaamu yàlla yi loolu moo waral ma def lii macha allah. ñaata pour ñu bénéficier euh, na 1000 personnes moo tax ma génneewaat 2 millions def ko weccit suñu joxee dund yi ba pare ñeneen ñu des. kenn ku ne ñu jox la 5000 bëgguñu ku fi ñëw ñu tas sa yaakaar loolu moo waral ma def 2 millions yi rek boo ko xoolee 400 personnes la bokkul ak li ñu bind. kon nag macha allah bëgg naa ñëpp am du ngis ngistal du dara damay damay liggéeyal suñu borom ndax li ma defal dafa rëy li ma jox dafa rëy jàkkaarloo ay jinne tuubal leen duggal leen ci diine lislaam defe naa ne loolu dafa rëy kon nag moo waral may ma may jaayante ak suñu borom lépp lu ma am bokk ak jaam ñi loolu kese la. lan ngay lan nañu dimbalante ndax dëkk bi dafa métti dëkk bi dafa métti ku wax ak ku waxul da ngay gis nit day xëy woor suba ba ngoon pour mu am lu mu ndogoo problème la wala pour mu am lu mu togg problème la ku mel ni ñu nga xamante ne yàlla may jox na la wecci tuuti na nga ko partager ak jaamu yàlla yi loolu laay digal ñëpp nañu dimbalante parce que bu ñu defee nii rek macha allah ñëpp dinañ am jàmm boo xoolee réewu arab yi euh, dañuy jàppalante rawatina weeru koor bu ñëwee kenn du fay lekk kenn du fay naan te ñun sénégalais fii jullit yi dañoo bari fii kon nañu dimbalante nañu partager loolu moo waral ñu def lii ñeneen ñu jàng ci leçon macha allah loolu moo. mun nañ ko gën a yaatal tas ko ndax chaque at damay ñaan yàlla mu yokk ndax daaw. vingt neuf euh, kii euh, trente trente neuf trente neuf millions laa génne nii nii nii trente millions laa génne mais pareeguma parce que laylatul xadri baa ngi fi te weeru koor gi jeexagul te xam nga ne dépense bi day gën a yokk chaque jour ndogu yi ak mburu yi kon macha allah trente millions yi dama ko génnee d' waaye yamuma trente millions ndax chaque euh, laylatul xadri suñu borom am na lu ma defal damay wàcce ay kaamil fii daaw wàccee naa soixante dix kaamil alxuraan ren aussi dañuy wàccee fii soixante dix wala lu ko ëpp jënd ay nag ay gilleem ngir doomu aadama yi mën a mën a mën a mën a bége loolu kese la du ngistal du dara. daanaka ab ñëw bëgg nañ nga dem dara wala Kaolack defee eh, waaw man génn naa fi dem naa Kaolack def social faj bi may def macha allah xam nga ne faj bi may def macha allah dem naa ba Kaolack. dem Estade Lamine Gueye ndeysaan dem eh, eh, Cheikh Tidiane imam Cheikh ak xalifa bi dem ba ci ñoom vraiment ñu dalal ma Kaolack ma dem ci Estade Kaolack bu Lamine Gueye doomu Kaolack yëpp génn ndeysaan. Euh, ma nekk fa faj ñëpp ñu yor jinne yëpp ma génnee seen jinne yi ànd ak jinne ñëw Dakar defe naa ne loolu social la macha allah kon nag mu Moule dafi nekk doon jaam bu gën a xeebu ci jaam ñi di di di gën di liggéeyal yàlla ci jaam ñi li ñuy wax man kaana lillaahi kaana laahu lahu ku nekkal yàlla yàlla nekkal la man sama aduna sama dund yëpp yàlla la yàlla ak yónente bi loolu moo waral man tamit lu ma am jàppale ko jaam ñi loolu kese la macha allah